tijaani sama waay la camiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub bu bi tëgg na nga ne yéen ñëpp ñu leen añ ci nga ma woo mbana laa taal ma ne looy wax lii mana nga ne ma mbana laa teg yaa baax yaa gore àdduna lépp teraanga la ndeysaan dëgg la uh-huh. ah gars yu baax. Uh-huh. dëgg la wallaahi. wallaahi wallaahi wallaahi dañuy wax kii baax kii dafa baax yow yow kenn yow. yàlla sa jàmm yàgg li ngay li ngay ñaan ci mariage ak li nga bëgg ci moom muy Wally Ballago Seck yàlla na ko yàlla defal barki alxuraan. Uh-huh, waaw kooku moo waral lépp. ko gërëm nag di ko sant ndax bu ko neexoon mu na ko yàlla la yow jàmm si yow jàmm nga ñu ngi am jàmm de jeex na ah, ndeysaan moo teral nii gis nga ñun Faramareen yëpp ci le 6 bi fii ci Pikine nga Wally Ballago Seck sa fant baa ngi nii sa fant ndëmba wan ci Pikine Salma ndeysaan am dee ngi noonu gaa yaa ngi noonu faramaran yëpp macha allah teral ñu ah goro Wally Ballago Seck mu ngi noonu Salma borom teranga ju baax ji teranga ji mot na barke Serigne Saliou vraiment yow moom da ngaa bëgg Wally ba ñëpp at ñëpp xam ko barke alxuraan fépp fépp ku Wally di dem yaa ngi fa taxaw fay sa xaalis ñëw Salma kenn du Salma yal na yàlla defal jàmm tegal tegal tegal ko tegal nii andi ñaar yaa waaw. kenn du yow da nga bëgg fu mariage bi da sant da nga bëgg dafa leer. bu photo yi xam ne lii lii mbëggeel la ko war photo bi yàggul. ma dugul sax inter. rafet na. on est ensemble. jërëjëf Idaly. jaajëf ma frère jaajëfati. les am di. di leen jaar sama Baye euh, frère Wali Balago Seck jàpp ci liggéey Wali Balago sekk macha allah gunge rakkam gunge nga xam ne mooy Wali Balago Seck ci liggéey bi. tey nag euh, sa rakk yaakaar naa date yi bari na macha allah comme ni ñu koy waxee euh, tey le 6 mai mu ñëw Pikine waaye tam. bu ñëwee Pikine tam yaakaar naa fi lañ yendu fekk la fi benn kër goo xam ne fet yaakaar naa fans Wally la bëgg waali ba mu jeex tàkk muy Salman Wally Ballago Seck goro Wally Ballago Seck def teraanga yi gis nañ añi def lépp tey nan ngay euh, gise tey bi nga ñëwee ak accueil bi mu leen defal tey nan nga ko sentir tey mhm. waaw non ñu ñu ñu gis nañ sa tur ak sa sant mhm. di siyaar sama rakk Wally mhm. bi ñuy wax Salman ñëw bi tey ci këram añ ngir Wally Seck bu mu nee li ñuy invité añ ngir Wally Seck dama sawar te yaakaar naa man ku may woo da may woo si Wally bu mu ñëwee nag vraiment teraanga yi mu defal sécurité yi di la nag ah Wally mais da xaw ma kan de mais bëggeelam wane nag coow ba jeex ñu indi ko yi wane ne te li bëgg naa sécurité ndax li mu ñu wantee tey si ñun kon yow mi Wally Seck mais bi kon sa bëggeel la moom kenn mu wax fu mu toll mm-hmm. di lay wax tamit ñu bàyyi ko xel mm-hmm. te di ko ndax tamit xewal jox xewal nit yombul kenn xamul fu mu jëlee xewal li jëndee ay xewal bu mu bëri indi sëkk de xam nga gars xam ne ay ponkal lañu lekk na bu mat ay six bool sept bool xam nga gars yi neex ñu ñoo neex ñu évité ndax ay luur lañu ah. ay ponkal lañu maasa lekk nañu jox ñu fruit jox ñu poisson lu ne daal maire bi defa nañu mais nag ñu ne sant di la gërëm yàlla na la yàlla bàyyi ak Wally Seck bu baax la fonk doomu aadama te ñu ku ñu fonk fonk nga Wally Seck ku fonk Wally Seck fonk nga sécurité Wally ku ñu bëgg ñu bëgg la ku ñu bàyyi ñu bàyyi mm-hmm. kon moom ñu lay ne maire jërëjëf Wally Seck ñu la naan suñu yaay ji kat ñu wax na jàpp ñu ko baax maire bu baax la du may faral di def nii rek mais nag kii nag moom daf maa sonal ganaar yi Sénégal bi moom daf maa sonal ay ñu <laughs> lay tey ñu fekk la fii ci Pikine ah tey nag suñu jigéen suñu lépp tey ñu bokk mariage muy Salma vraiment ne Faramareen yëpp nañ añ ci tey yenn ci këram comme Pikine la sis bi tey Wally Ballago Seck day ñëwaat fi nga xam ne moom la am muy Pikine nan nga gisee teraanga euh, Salma yi ak boo di wax ci Salma ak ni mu bëggee Wally Seck ngay wax vraiment di yokk sant ak gërëm rek mm-hmm. di Salman borom xoolu jamaa bi mm-hmm. ku baax ku yaatu ku tabe waaw bëgg waale te bëgg a duwul waale dëgg la mhm. man depuis bi ma ko jàppee ba léegi aussi mhm. vraiment gis naa ci moom ak yaatu mhm. ak mbaax ak bëgg waale ak dëggu aussi di ñaanal diggante moom waale aussi yàlla na yàlla gën a yokk yàq yokk ànd bi gën a guddal seen fan bu baax a baax vraiment maa ngi kontaan ci moom bu baax parce que lii du ma ne guleet moom dafa yàgg a bëgg waa lii rek firndeel na ko waaw lii rek firndeel na ko xam nga sa saal bu nga xamante yaa ngi ko doon mm-hmm. mm-hmm. yàgg quoi di gaa yëpp nag mm-hmm. waaw leen di gërëm di leen sant vraiment ñoom tamit ñu baax la am yëg-yëg la mënoon nañ ci bañ a wu ñëw xam nga sécurité ñoom ñëpp ñu ngi fii xam nga xol yi sedd na daal waaw lekk gi doy na jus yi doy na salade de fruits lépp nice na mhm. kon vraiment taw féex rek mhm. di wax nag waale mhm. ne la jàmm sonal barke Serigne Touba laf cat rek li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko suñu borom defal di ñaanal suma yaay jooju mama jaaga yàlla guddal fanam dañ koy weeree ko weeri barke Serigne Touba ca kaw ca kanam ci lu baax ay ca laf cat merci beaucoup bég naa ah. mais moo très cher Idalee Ngom nante bi nee na ma lay jaar. mais waxuma lool de borom. ku seetaanul sa site baaxul. ndeysaan yaa baax. yaa fi ne. dëgg la yow ñoo bokk kër ndeysaan jaajëf waay ñoo bokk lépp. dëgg la mais ñu bokk teen ñooy laxasooy. ñooy laxasooy ko barki sëñ Saliou. walaay dëgg la. ñu am kenn koo xamante ni mhm. lépp moom la. dëgg la ndeysaan. muy suñu maar. maanaam mhm, ndeysaan. nit ku baax. waaw 12 ans lañ def kon mën naa wax ci moom. Mhm. ndeysaan waaw yaa war a wax 12 ans. waaye du 12 jours waay. 12 jours de ah. déedéet du 12 mois. mu nekk nit ku baax nit ku yaatu xol nit ku bëgg ñëpp fu ne la ñuy dem ni ñuy teral ndax moo ndax jëmmam tey xoolal lii dëgg la misir mhm. ceebu jën yi dëgg la mbuus xoolal wallaay dëgg la mhm. barkeem la barkeem la naan ku gërëmul nit doo gërëm yàlla doo gërëm la dem ay waay yaa waaw moom suñu nawle la def nañu comme boppam xeebu ñu benn yoon fu mu dugg dugal ñu ko mhm. fu mu dugg dugal ñu la. man loolu ma gën a neex. man boo ma xeebee ma dem bàyyi la. dëgg la bul ma jox dara mais jox ma cër. cër mooy jox ma li ma moom. moom laa ko toppee. te moom loolu la loolu la ñuy def. Mm-hmm. nit ku baax la man xam nga ne ku ma xam-xam ne sama bopp laa gëm. te doo wax lu bari dara yow. mais waali bul tiit. Mm-hmm. bu ragal bu ragal coono ko demee wuti bu ragal. Mm-hmm. ca kanam. ca kaw. ci barke Cheikh Ibra. Ah! waay waay dëgg la. ah man Cheikh barke mu ay ama gën naa la bëgg tey barke mu. maa man Fall ah ay waaye moo tax waxtaan dafa baax communication. waa Kër Cheikh la. man waa Kër Cheikh la. bu ma la ci waadalee ne dama lay rey foo ma gis. barke maam Cheikh dama lay rey. bu ma nee la barke dama lay rey. foo ma gis ñàllil dama lay rey xamal ne la ngay dee. billaahi. allahu akbar. mais Waly nit ku baax la. Mhm. dama nekk moom dëkk ak moom. mun naa wax ci moom. dëgg la. su ma waxee war naa wax ma war war naa. wallaay dëgg la coow li nag bëri na mais nitu coow la. dëgg la waaw. loolu moo koy dundal. dëgg la loolu moo koy avancé loo. Mm-hmm. Mm-hmm. mais wallaahi al asim mm-hmm. yàlla bii ma tiim. su ko yàlla fayee xolam. da koy fay. kaw rek la jëm. da koy fay xam nga yàlla moom mooy yàlla. te yàlla moom mooy yërmande. ay eh, ama wax nga lu solo. yàllaa ñu gën a baax. dëgg la ku liggéey liggéeyalal borom bi. te moom nag mu ngi liggéeyal borom bi ko su ko neexoon mun yàlla mën na koo may lim ko may te du xoolal du respecté kenn du kii kon it dañuy xam ne noonu la demee rek. dëgg la waaye dafa xam cëram ba pare di ko def. bugul ko mere nag. dëgg la. bëggul ko ko mere. Mhm. mais des fois nag foo nit ñi di ko mere loolu baax na ci quoi. Mhm. baax na bëggul ku ko mere waaye boo ko meree sax day day day day xat. day xat waaw. damaa dëkk moom déggoo li ma la wax yow xam nga li ma lay wax. Mm-hmm. yow nit ku baax nga. xam naa ne da ngay dem ba jeex man gis naa lépp man waali dama ko bëgg sama boo ma tegaloon milliard. Mm-hmm. tegal ma waali ma taal milliard bi yëy doom bi. jël waali la wallaahi lu ma la wax ci moom téere la. xam naa lépp am nit ku baax la yàlla ko yàlla dafa jàmm. Mm-hmm. waxuma la ay gars yi dañuy wax ay disque d'or. non day xaw foofu. waale àdduna da koy téye. Ah, da koy téye parce que am na gëm-gëm bi. dëgg la te am dem man mën bi mhm. fit waaye fitam laa ko bëgg mhm. man bu ñàkk ñàkkuloon fit dama ko toog parce que man dama am fit mhm. ma ragalu ma dara am naa lu may rus na waaye ragalu ma dara fitam moo ko indi fii tey waaye ba ma koy topp déggoo li ma la wax kenn topp ko ñu bëri nañoo bañal ñu bëri nañoo bañal dëgg la xeex naa ba sonn ndax moom dëgg la xeexuma nag ndax ay kii man damaa xeex xam ne gaynde la borom fit la boo ko jàppalee day dem looloo ma bàyyi ci moom ba léegi. marché laa jóge. dëgg xam naa lépp man sama bopp rek xam naa lépp fekk am na fa la fekk. man waaye lépp fekk naa la ci ruq. waaw <laughs> baax nga. law yow. man maa ngi gis lépp. ndeysaan man yéen laa am. su ma neexee wax lu ma neex. waaw te kenn du ma def dara. waaye wax waruma. dëgg la jëf moo la war nit ñi wax liggéey. nga jëf nañu liggéey. Mhm. nañu liggéey te yéena ko li mu am ñu gunge ko. ëllëg mhm. suñu wàll day ñëw. dëgg la ku nekk sa tur. dëgg la yàlla mooy maye kenn mayewul. Mhm. kuy mere mereel yàlla te yàlla buy jëf ngay bañ ah day gën a jëf rek ngay mer yal nañu yàlla mooy xolu muñ yàlla yàlla defal jàmm yàlla yàlla defal jàmm kenn du waali waali barki Seydina Mohamed wallahi lasim man maa ko bëggal sama bopp loolu nag yàlla moo ko dogal mhm. lu mu am na téye nag te nga nay gis. man nay am jàmm rek ma di ko gis. Sénégal damay tëdd jooy. ndax jërëm baaw li mu yen bi dama ko dama ko daf may dal man mii. bu baax. nee naa ko boo tukkee tee di yàgg parce que dama lay nam. oh ndeysaan. koo koy mais moo koy waali mais waxuma loolu de mais sa xeetu sañse démb. lu ñu gis ne bu dee concert. li ngay def mais démb dañoo gis dîner de gala bi. nga def costume. ba pare yow costume sa yëf la. Ah. parce que gis nañ clip boo génne def costume. non nekk ministre. gaa yëpp ci man la ñuy inspiré woo costume. costume damaa mën a sañse nag. man ma xam loolu. nitu marché la. booy benn tali la na. ak ki dàq sañse ci Afrique nag mooy sama patron muy waale moo dàq sañse day sañse may yooyu acca barki Seydina Muhammad moo dàq sañse ci àdduna dëgg la kon nag wóorumaa mën a cuune nag waaw mu kontaan nañ ma nekk marché HLM dëgg waaw ay couleur ah waaw maa mën a sañse yaa mën sañse am ah. kon maa ngi lay char Malaysia. naka yi tey waaw waaw yow moom ñoo bokk lu ñu bëgg barke sëñ Touba macha allah ngay liggéey liggéey professionnel nag vraiment ci Wally Ballago Seck xam fa macha allah sa sécurité nga nekk euh, professionnel macha allah tey ñu ñëw fii ci Pikine Wally di tëgg la si Pikine suñu jigéen Salman bëgg bala goo sekk ne tépp sécurité bépp koo xam ne framaren nga ñëwal sama kër añ ci tey bu fekk la fii mu daral leen macha allah tey booy wax ci diggante Salman ñu bëggee Wally Seck ak tey Wally Seck ñëw pikin lan ngay wax waaw damay nuyu ñëpp di gërëm ñëpp nuyu waa Pikine nga xam ñoo lañ fi fekk ñu kontaan si ñoom di leen gërëm di leen sant di gërëm tamit suñu xarit suñu jigéen bu Salma moom nga xam ne moo di jël dañoo bàyyi suñu lépp mënoon lañ bañ ñëw tey parce que dañuy am concert euh, place de l'Obélisque mais dañ ko bàyyi ñëw añ sa fii pour delluwaat place de l'Obélisque dellu si waat Pikine mu nekk affaire bu rafet suñu jigéen la mënuñu ko bañal loolu ñuy gërëm ñëpp di leen di sant ñëpp di wax ni tamit kontaan nañu si añ bi lekk yi bari na boisson yi bari na lépp bari na yi lépp bari na di leen gërëm yéen ñëpp di gërëm sama sécurité ñoom fifty yi ama Pape Diop El Capo ñëpp maa leen di gërëm ñoom Sow Thier ñëpp di gërëm ñëpp tamit di gërëm tamit suñu grand bu baax bi aussi xam ne ñàkk ku ñàkk ci ñaan la waaw itam kenn du yow macha allah euh, macha allah mu ngi sant ñëpp gërëm nga ñëpp ñu gis ne Wally Ballago Seck sa frère sa lépp du mën a sécurité mais sa frère nga ñëw jàpp ci liggéey bi muy euh, artiste boo xam ne yaakaar naa bu ñu leen domba wan ci Sénégal moom la ñuy wax tey mu jël si Pikine fi nga xam ne fi la soxe ko muy Pikine papaam jóge fi ay maam jóge fi tey mu war fi jëw bégal waa Pikine euh, lan nga ciy wax ci loolu waaw xam nga waale moom ñun jàppewuñ ko sax comme affaire de sécurité dañ ko mm-hmm. jàppee comme frère mm-hmm. nous sommes nous sommes la famille. ñun mhm. ñëpp ay famille lañu. dëgg la moo tax ñun waale lépp lu mu sumb wala lépp lu mu dugg rek. ñun dañ ciy dem ba jeex. Mhm. parce que moom moom la rek. moom moo ñu ko ji bu ñu ko jiil woon ko duñ duñ mel moom nii. Mhm. lépp lu war si ñun duñ koy def. ñu si côté moyen si côté lépp mi ngi koy def si ñun. moo tax ñun waale ñun amul luñ koy waxal wala luñ koy jëm a kii. parce que ku xamul rek xamoo daal. waale ku ko xamul rek xamoo. xamoo loolu la daal. jërëjëf jërëjëf Idaly ñu lay gërëm di la sax. cher. naka mu lam foora euh, mais maa ngi lay siyaar baax a baax di frère yaakaar naa du ma ne sécurité mais du fekk Wally Ballago Seck jàpp ci liggéeyu Wally Ballago sekk macha allah koo xam ne Wally Ballago Seck mu ngi fa rek événement bi jaara ngeen koy ot macha allah sécurité bu mot sëkk sëkk ba benn problème du am tey ñu fekk fii ci Pikine le 6 mai Wally Ballago Seck war a ñëwaat fi nga xam ne mooy dëkk muy tëgg euh, muy tëgg Pikine tey nag koo xam ne fans la sœur la lépp la muy Salman Wally Ballago Seck teral leen ne leen euh, képp sécurité bépp faramaare na ñëw may euh, ñëw sama kër tey kon ñu fekk leen fi nga nan ngay wax ci Salman euh, diggante ma Wally ak la ngay wax ci liggéey Wally bi oui avant tout nag dañuy nuyu ñëpp di mm-hmm. siyaar ñëpp nag waaw di nuyu Salman di ko wax ne ko moom mm-hmm. nday ji seex la quoi ndeysaan ndaxte kenn du bëgg yaa ngi di bañ doom. dëgg la dafa bëgg waali bëgg ñi waali uuf ñëpp. ndeysaan ak ñi uuf waali. Mm-hmm. ndax Wally sans ñun du dem. dëgg la waaw sans moom tamit duñ dem. duñ dem dëgg la du leer waay rek. Mhm. waaw lépp tamit nday mbili gi moo ko waral. Mhm. Wally Seck moo waral lépp. Mhm. ndaxte tey ñun ñëpp su demee bay dajee fii toog di añandoo. à ah, grâce Wally Seck dëgg la. ndax Salma bëgg waale moo waral mu indi ñu fi ñun ñu si kër. Hmm. mais nag ñaanal suñu borom dëgg la dëgg la mu dem ba koy feet ay édition édition. amiin waaw dem ba suñu borom garal ko ay doomam dem di ko feetalawaat. comme ni ñu koy feetoo nii. Hmm. maa ngi ñaanal balaa ba sekk li mu sumb nii yàlla ko suñu borom moom nan koy ñaanal gudd fan nag. su guddee fan nag ñu ñëpp hmm. jantal gaañ. kenn yaa ngi gis ne ni ñu jàpp si affaire xam nga site internet yi ñëpp suñu meloon na yow léegi léegi dëkk bi avancé la am ndax yow dara lu ñaaw lu rafet la koy wane ñu ngi lay ñaanal suñu borom teg loxo ba nga dem ba ay télé ay télé ay télévision laa lay ñaanal jaajëf di daal sama waay la jàmm ñal jaara busut wala mañ se